Denis Ndour maa ngi lay nuyu. maa ngi lay gërëm di la sant. alors ngay vice-président wu euh, Ligue sénégalaise des droits humains ngeen taxawal fi nag ak yelleefu euh, doomu aadama yi euh, ana nan nga jàngatee tey violence gu métti nga xam te ne nemmeeku nañ ko ci campagne électorale ak li nga xamante ni mooy cortège Sonko bi ñu attaqué ca Koungheul. Euh, yaakaar naa ne commencé wul ci li xew Koungheul rek ak euh, cortège Ousmane Sonko waaye mu ngi woon ndorteelam ba ñu déparé ci campagne bi ñun nag société civile dañoo mel ni dañoo géntoon loolu parce que balaa ñuy commencé ci la ñuy artu daal di bind ab bataaxal jagleel ko ñëpp ñuy chef de parti chef de coalition ñëpp ñuy dem ci joŋante bi ne leen kat nañu moytu fit yi ndax li ñuy wax ay du yem ci bopp boromam. ndax yow fii ngay commencé waaye xamuloo fan lay jeex ba tax na dañu ne dañu bindoon ne dañu fexe ba campagne bi ñu def ko ci jàmm jongante la waaye dafa nekk jongante yu sell jongante yoo xamante ne ku ci ne da ngay gis sa bopp ne damay wone sama mën-mën ci naka laay changé penc ndaw réew naka lay wone ne man bu ma demee ci ci penc mi dinaa fa taxawal réew mi euh, askan wi ba mu mot sëkk donc jàpp naa ne bu fekkonte ne daal ci loolu la ñu euh, tënku kon du yegg ci violence bi ñu ngi nag regretté euh, dégg nañu ne Malick Gakou am na fracture dégg nañu aussi euh, yeneen i militants yu gaañu ñooñu aussi ñu ngi leen di massawu euh, wax dëgg yàlla di di wootal seen njiit yi nee naa militants yi waruñu am benn comportement boo xam ne day mel ni ab sàmmkat ak ay xaram xëy na wax ji xaw na ñagas waaye ba koy xoolaat loolu lay xaw niroo parce que man mënuma nekk militant sama sama leader na ma indi jaasi wala defal li ma koy topp waruma ko topp parce que loolu du lu baax donc bokk na ci aussi ci leader yi li ñuy li ñuy wax ak li ñu koy waxe loolu aussi lu ñu jar a xoolaat la parce que aussi sa kilifa mënuloo nekk ak moom mu lay wax ne def loo xam ne dafa saataanu ak jàmm donc li ñuy woote daal mooy jàmm te di naqarlu vraiment violence yooyu di ñaan yàlla mu yem ci ñu woo nag mu euh, Sénégal yëpp ñi nekk ay militants ñi nekkul militant ñu jàpp ne période campagne bi du période aussi lu ma neex def du euh, joŋante la ñu war a weccante xalaat def ko surtout si débat programmatique maanaam lan ngay andi ci li nga xam ne accès bi dinañ gis nañu kat bu ñu fa demee dinañu fa toogal. alors junj nga ko sànq mooy ñi nga xamante ne amee nañ ci ay gaañu gaañu ku ci mel ni El Hadj Malick Gakou mu mel ni loxo bi sax euh, gaañu gaañu gu métti euh, la ci am ana nan nga jàngati euh, situation bi. waaw lool dañ koy déplorer rek mooy li bokk ci mbiru violence bi rek moom laa wax léegi jàpp naa ne leader politique yi ñoo war a def seen rôle def discours bu sell discours bu discours dal bu am jàmm waaye boo nee boo def lii. wala nga ne booy génn nañu àndaale na gànnaay sàngam donc ku koy wax rek pour man ci n'est pas responsable te donc responsabilité la nag ci njiit lay commencé ca borom kër ga euh, jàpp naa ne buñ ko defee du du leader yi rek waaye kenn ci gars kon nag dañuy jéem a tourner la page xam ne li des ci campagne bi des na tuuti. ñu mën ko def ci jàmm ak salaam. alors bu weesoo gaañu gaañu yi nag bëri na ay dégâts matériels yoo xamante ne eh, jot nañ ko ci nemmeeku ay oto yu ñu eh, toj waaye tamit ay moto jakarta yoo xamante ne eh, dañu ko yàq te loolu yëpp yi tamit perte bu mag lay jur. waaw dëgg la moo tax ñu ne ministère de l'intérieur ñoom ñoo yor kaaraange nit ñi ak seen i alal donc baax na aussi dara bu la dalee bul ko fajal sa bopp parce que boo ko fajalee sa bopp rek mooy bàyyi nga nguur mu fajale Euh, procureur dafa enquête am pour situer les responsables dañ nga xam ne ñoo yàq ñu fay la yàq parce que alalu jàmbur la euh, jàpp na aussi que ne procureur bi euh, wane na ne moom taxaw na ci tànk yooyu parce que dès le départ bi wax ju ñagas yi génne moom génne na communiqué te ñun suñu communiqué laajte wala noonu la ko moom la génn ministre de l'intérieur la génn pour ne nit ñi kat war nañu war a xoolaat seen bopp ci li ñu taxawee su dul loolu boo defee loo xam ne ennawul ak ak li yoon wax yoon dal sa kaw. sa mhm. jii sax ñu ngi doon def benn lancement saxal jàmm senegal ak société civile bi ministre de l' intérieur mu ngi fa pour fàttali ne ak société civile bi aussi suñu war a gor moo ñu taxaw temm pour wax nii ne surtout les way politique yi que ne Sénégal moom ñu ko ñoom parce que ñun ñëpp lañ ko bokkal te jàmm nag ci la lépp xaj donc bu ñu nee rek campagne électorale ñëw ne rek yow neex la ñuy def. Mhm. donc loolu aussi dañ leen ci gën a ñaax pour que campagne bi nekk campagne fair compétition bu sel ba kii gagné 17 novembre ñu xam ne moom moo gagné ci jàpp. alors laata Sonko gis nañ ni euh, attaqué woon nañ fi nag siège taxawu Sénégal xalifa Sall sax annoncé woon na fi ab plainte ndaxte am na caméra de surveillance yi li nga xam te ne jot nañu ko wone loolu tamit nan nga ko jàngatee. waaw caméra de surveillance moom lu baax la waaye xëy na Euh, parce que aussi dafay laal question privée donc boo nee question privée mooy yaa ngi laal ak ak yelleefu aadama nit ki nga xamante ne peut-être bëggoon nga koy filmer à son insu waaye li ñuy naan quelque chose malheureux bon maanaam xëy na foo xam ne aussi dafay arrangé parce que bu fekkente ne caméra de surveillance yi wara nañ ay nit yu ràññee leen day tax rek enquête bi gën a bar day tax aussi ñu mën a andi solution ñi nga xam ne ñoom ñoo tooñ ah may rafetlu aussi kàddu Khalifa Sall yi bu mu waxee ne moom dafay porter plainte ndax mënoo ne damay fajal sama mais defu ko dafa resté républicain dem pour porter plainte donc loolu mooy yoon bu ñu la tooñee bu ne damay fajal sama bopp ngay dem ci yoon fi mu mën a nekkee benn hmm. nga xam ne ñun la boote képp ku wàcc euh, loi euh, loi dafa war a dafa war dal sa kaw. parce que loolu mooy état de droit loolu mooy démocratie. alors donte baalu na sax askan wi waaye Abass ñuy fàttaliku ne am na ay kaddu yi nga xam te ne jotoon na ko fee yëkkati bay woolu sax militant mi ñu armé wu te loolu yëpp yi tamit mën na jur violence. waaw loolu wér la ñun naqarlu woon nañ ko condamné woon nañ ko euh, ci ëllëg ba mu ko waxee parce que jàpp nañ loolu du waxu kilifa du waxu responsable waaw moom ci boppam nee na daa meroon Euh, ñu ngi ñu ngi aussi li mu wàccee boppam daal di baalu àq léegi ko baalu àq bi sax waroon na am benn bémol parce que nekkul baalu àq total te dafa baalu àq ba pare am na ñoo xam ne boolewu leen ci ma jàpp ne booy baalu àq nag ñëpp rek nga war a baalu rek loolu mooy apaisement maanaam parce que ki nga baalul àq day mel ni am na lu ko dencal boo ko dencalee dara mooy loolu mooy mun ngeen jotewaat donc ñun li ñu bëgg mooy vraiment ku nekk bés sa xol. jàpp ne erreur yëpp lay dal mun ngaa mer def loo xam ne waroo koo def mais boo baaloo rek dañ la war a baal ñu ànd euh, fexe ba jàmm mën a sax ci réew mi ci li ci euh, campagne waaye mu mel ni dégluwuñu euh, message bi nga xam te ni moom la njiitu réew mi ba Bassirou Diomaye Faye jotoon na woote ne daal bëgg na dal am ci dëkk bi te dafa mel ni ba mu ko wootee yàggul dara ci la violence yu bëri yi jot am waaw dafay mel ni rek benn waaraatekat buy waare waaye li muy waare muy topp ci nopp ku tëx hmm. loolu lay xaw niru ñun lii société civile balaa président de la république jël kàddu ñu jëloon nañu kàddu déjà di artu ñi nga xam ne ñooy chef de coalition yeeg parti pour wax leen ne dañu fexe tout ba campagne yi def ko ci dal ak jàmm ak sérénité waaye def ko aussi ci fair play waaw vraiment compétition bu sell président de la république son excellence Bassirou jo Diakhar euh, Diomaye Faye moom it ñëw dool doo doolee ñu ci loolu daal di lancé beneen appel pour que nit ñuy def lépp ci jàmm waaye bu ñu ko dégluwul nag loolu mooy ñàkk civisme ñàkk orma ñàkk bañ a dégg li nga xamante ni moom la kilifa wax man dama jàpp ne tey chef de parti ak de coalition yi chef de liste yi ñoo am rôle bu rëy bu ñu war a joué ndax ñoom ñoo war a euh, canaliser seen i militants ba nga xam ne dañu doon ay militants yoo xam ne dañuy topp rek te lii ñu baal ma ci terme ay xer yi topp euh, sàmmkat hmm. waaye dañu war a doon ay yoo xamante dañuy xalaat bu ñu la waxee defal lii nga xam ne lii lu bon la nga bañ ko def du parce que damaa bëgg sama leader rek damay daw di yor ay fital di yor ay jaasi gis nañ ko ci image yi euh, attaque Ousmane Sonko bi loolu lu ñu war a dund Sénégal waratul am te maa ngi woo ministre de l' intérieur mu jël matukaayam ba mu mot sëkk ndax moom la ñu wax ne moom moo war a Euh, saytu kaaraange nit ñi seen alal. donc loolu daal lañu ko war a dakkal. alors lan la ñu war a def nag ngir mën a am rek euh, campagne électorale bu jaar yoon waaye tamit bu am jàmm. li ñu war a def mooy ñu ñaax famille yi famille yi dañu am rôle bu rëy bu ñu war man suma kër du ma nangu kenn génn ko yor jaase wala yor xital wala yor arme blanche maa ngi dem campagne wala maa ngi dem meeting wala maa ngi dem euh, marche wala caravane loolu du waruma koo nangu te du ma ko nangu. keneen bu dee waxee noonu ça veut dire que benn famille dara du fa génn parce que lépp ci famille yi lay génne ñaareel bi mooy yow mi nekk chef de parti wala chef de coalition boo ñëwee balaa nga def sa caravane wala balaa nga def sa meeting na assuré wu na yow ñoo ñëw pour yow nekk say militant ndax kenn yoru ci gànnaay parce que loolu yoon da koy tere am na ñoo xam ne jàpp ne campagne lañ nekk leen neex def déedéet lu la mu ngi fii fu wàcc yoon na yoon na fa war a daw sa kaw. Denis Ndour jërëjëf may fàttali rek ne yow yaay vice président ligue sénégalaise des droits humains ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax.